bismillah na ministre bi lé Ba n'est pas naturel allahu akbar allahu akbar nee na génn àdduna ministre des finances day woon waaw mbir ma day am na lu ca làqatu di da sur quotidien ne jàppal ne génn àdduna ministre des finances et des budgets Moustapha Ba waaw wàllum si sis ba day dugg na ca allahu akbar ba day la mu xam daal mooy gis nga dee gi lée am na lu ca lax bu ñu sukkandikoo ci procureur aha waaw waaw en tout cas coow li day bëri na ci diggante yoo xam ne kon bokkul day jógee nag ca ëttu procureur di parquet ba moo tax it buur day daal dinay santaane nañu dugg kon ca biir këram googee levée du corps ba day daal koy aj nag ba jëmi jamono le soleil yéene xel day tey na coow li tamit bëri na lool ci génn adduna wu kii di ministre Mamadou Moustapha Ba ndaxte nag bu ñu sukkandikoo ci procureur de la république waaw autopsie bi day la mu wone ah, mooy génn addunaam bi am na lu ca laaxu de du dee naturel de aha ah, waaw waaw levée du corps ba day le procureur ouvre une enquête la famille dans tous ses états dëgg la famille bi kay dañoo mer ba maara day laa la wax le mandat yéen a kaa ne dama ne procureur nee na deewu ministre Moustapha Babile am na lu carax wal fajri ne autopsie bi day bi nga xam ne maanaam def nañ ko ca néewu ministre des finances woon waaw mbir ma day affaire d'état la nag léegi waaw waaw maître El Hadj avocat famille ba day nee na ministre Moustapha Babile yoyoo wulli la déedéet mérité wulli la de deux minutes pour lire l'essentiel nee na denc ba day aj nañ ko laa lay wax ni lée ba mujj jamono en tout cas Moustapha na daal tëddkoon daal di noppalu Dakar a ngay càmbar nag ak a la Paris def waa dig day police ba waaw procureur activé na leen réew mi quotidien na dëgg la le procureur active la dik ginnaaw nag kon autopsie ba allahu akbar 24 heures yéene kaa kan moo rey ministre Mamadou Moustapha Ba loolooy laaj wax en tout cas de la République day waaw nee na résultat yi nga xam ne ñoom ñoo jógee nag Mamadou Moustapha Ba mi lée mooy mbir mi naturelul mbir mi daal xel tey na ca lool lool lool kii kan moo ko rey allahu akbar moom procureur ba léegi ni lée waaw lam bëgg daal moo ñu xóotal kon mbir ma révélation yi ne kaa ne en tout cas génn addunaam bi daal doy na waar waaye lan ngeen xam lu ñu xamul ñin le verdict news de en tout cas daal lañ ca mën a xam mooy procureur violé wul loi bi de déedéet waa grand place ne waa division des investigations criminelles tey ña ngay song nag ña ñu njort na ñoo rey ministre Moustapha Ba les écoles yéene kaa ne denc ga daal aj nañ ko ba jëmi laa la wax la ne waaw procureur ci boppam kon moom moo dàq dëj ba ba jëmi jamono l'indépendant yéene kaay ne en tout cas génn addunaam bi lee cool la public yéene kaay ne waaye Moustapha Ba mi lee kañ lay noppalu laaste en tout cas xel daal tey xel daal tey na ci génn addunaam bi lee tribune yéene kaay ne xel tey na ci génn adduna ministre des finances woon l'observateur day dellu sëg ngin na ci la nga xam ne kon moom moo xew waaye yow jabar ji lee lan moo tax ñu daal di koy convoqué division des investigations criminelles loolu tam moo jaralaat en tout cas day woote yi ak bi ñoom juróom-ñaar ca France lan moo tax ba jabar ji lée néew dee la gis gisul te kër ja de néew la gis ca jamono jooje point actu na en tout cas gaañaa nga ca campagne ba dee Abdoulaye Diouf Sarr nee na moom sàmm sa kaddu lay daal di kon votel waaw waaw la peuple quotidien ne waa forum civil day ñoom Birahim Seck waaw ña ngay naqaru lan moyen de l'état yi nga xam ni kon dañu ko utiliser ca campagne député yi lée aha waaw waaw leve yéene kaay ne après Sonko waaw Amadou Ba day mbooloo mu bari moo ko gàttandu kon ca duwaanu njum gëre waaye titre foncier ba kan mooy borom looloo jara laaj Cheikh Bamba Dièye ci Walf ci quotidien waaw nee na ñun amuñ sax jiixi jaaxaa laa la wax ne dañuy gagné ca jamono joojee yéeni kaay Sidi Lamine Niass ki nee na Barthélemy la mu bëgg def Medina day mooy benn pôle économique révélation yéene e ne en tout cas Amadou Ba day waaw daal dinay seede ñi nga xam ne ñoom ñoo lorule ca diwaanu Fuuta googee te moom Amadou Ba jamangari ma ngay daal di woon a kilifa yi ñu wàcc kon sur le terrain ngir jàppale ñi nga xam ne ñoom ñoo loru ci wàllu mbënn moomee ca Fuuta ak li ko wër l'informateur yéene kaay ne le général Kandé waaw ma ngay porter plainte nag ca lañ koy tuumaal wàllum coup d'état ah daal di nay plainte kon ca procureur l'évidence yéene kaay ne méga meeting ca njum Amadou Ba ak Cheikh Oumar Anne Milé daal di nañuy joxante loxo de bu baax Amadou Ba ne am na ci ay noon yoo xam ne day seen pexe yëpp ma rek ak Cheikh Oumar Anne Milé waaye loolee mënta ne le républicain yéene kaay ne Cheikh Oumar Anne waaw daal di nay wane boppam nag bu baax a baax ci kanamu kii di Amadou Ba critique yéene kaay ne noo Podor kay Amadou Ba lañ def seen biir xol yaa jum wala maa jum ma ne la Podor porte Amadou Ba en triomphe mbooloo ma bari na ca jamono jooje leen fa yéene kaay nee na bugaan ngay dani day ma ngay jubbanti na nguur gi ak li wax ci wàllum gerte gi ne dootul dama dikkoon ca bitim réew Cheikh Oumar Anne nee na Amadou Ba ci teral yéene kaay waaw ñi nga xam ne dañuy yàkkamtee a xaar ma tàggali ko ak yow nañ dem toog Dakar Presse meeting jàmm ak njëriñ ba ca Fuuta day waaw la génn ci doomu aadama gàttandu kon kii di Amadou Ba ca njum foo sànni mbàttu muy tàkk ca jamono jooje le maître du jeu yor yor yéene kaay ne Sonko Diourbel ak Louga bële waaw magnifique mbir ma rëy na grandiose magique foo sànni mbattu mu tàkk dama ne waa Mbàkke tey ah est-ce que ñii nekkul na ñoo jël coupe ba dama ne sëñ Cheikh Thioro la mu organiser démb ca stade Iba ca Mbàkke gële foo sànni mbattu mu teg la wax dem naa ca làmb jë la Dakar waaye yéene kaa ne rëg-rëg day yóbbu ne nag ay couleuru Sénégal fu sori tribune sox ne du monde moo tax président waaw daal koy féliciter xamal ko ne ko honoré na Sénégal Amadou Ba nekkoon waaw nee na ko nous sommes tous unis pour célébrer cette performance Khady Diène Gaye ministre des sports nee na Reug Reug une source d'inspiration xale yi mën ngeen a xool ci moom de aha waaw waaw dem naa ca football ba record sport nekk en 2025 ba day Burkina Faso Sénégal 14 novembre bi la waaw entraînement gayndey bu njëkk jilee ci digg bëccëg bi la Seydou Sano de forfait na daa am ay gaañu-gaañu bu gaañu-gaañu mitti rek de waaye nag jàpp leen ne ak lu mu mitti mitti mitti mitti mitti mitti mitti mitti mitti mitti suul gaz du ko Sonko Diomaye te Diomaye Sonko boo paree ma la alaaji tëjal Sonko